ñépp xam nañu le monde est en arrêt le monde waxuma Sénégal c'est le monde qui est en arrêt en ce moment euh, li tax ñu événement bi je pense que c'est à cause du Covid et euh, c'est très difficile très très difficile ndax ba ñuy jël initiative di tëgg concert Oda Diouf bi on pensait que ne la maladie était derrière nous xam nañ ne am na mais au Sénégal on pensait que ne euh, mënoon nañu am yaakaar mën a commencé waat dëgg euh, ay concert euh, c'est dur c'est vraiment dur ndax financièrement moom nit ñi xam nañ ne indi artiste bu mel ni Dadju en Afrique c'est pas donné et puis nous on a voulu faire mieux on a voulu faire mieux mooy indi pour la première fois en live muy avec ces musiciens mu nekk un budget colossal ndax euh, événement bi mu gën a cher par rapport li ma doon fay daju avant parce qu'on a voulu faire les choses euh, beaucoup plus euh, costaud pour que sénégalais yi mën a gis daju ci beneen facette yàlla nag mooy dogal yàlla mooy def ay mbiram ndax euh, on s'était dit que ne cette année moom public sénégalais mais surtout la jeunesse ils vont ils vont faire la fête et puis ñu choisir après la tabaski on s'est dit que ne day nekk genre ndëwënal pour les sénégalais pour la jeunesse et puis mu nekk aussi démarrage des vacances ndax day fekk vacances yi tàmbali ah te gisoon nañ ne Sénégalais ils étaient tous mobilisés pour ce concert-là mm-hmm. on a eu beaucoup beaucoup de retours positifs quand on avait annoncé le concert euh, démb nag bañ ko reporté lu ñu jot ci ay messages sa confirme que ne l'artiste était vraiment attendu à Dakar mm-hmm. on a reçu des des audios xale yi di jooy mm-hmm. ay parent du ñu woo nañu xale yi ñu ngi doon xaar artiste bi. mais dafa am ay fait yu am muy la réalité c'est la maladie ndax aussi mënuñu sacrifier jeunesse bi à cause de ça ndax man maa jël décision c'est pas une décision de l'État man je suis parti voir le gouverneur euh, je lui ai posé la question est-ce que am ngeen visibilité que ne mën nañu tëgg événement d'ici le 31 juillet le gouverneur Sall m'a fait comprendre que ne ñoom amaguñu benn benn benn visibilité ci loolu te Macky Sall jëlagul benn décret ma ne ko nag ñun mënuñu xaar a la dernière minute ñu annuler événement bi te aussi bëgguñu tëgg concert ay nit dafa ñëw du yóbbu feebar man ça fait quasiment dix jours mënuma nelaw je pensais à ça qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois j'entends il de a des cas il y a des morts et c'est de pire en pire man rekk ak yàlla je reporte ou je fais je reporte ou je fais xel comme bâche xam ngeen ne ñoom pour ñu installer seen matériel ci événement bu toll nii il leur faut minimum dix jours minimum c'est le last minimum aussi m'ont appelé qu'est-ce qu'on fait man leen non nañu xaar tuuti ba ma am retour venant de l'État aw ma retour ma kan lay contacter j'ai essayé d'appeler des personnes mais kenn mënuma wax lenn lu leer et je suis parti voir moom mu ne ma wax dëgg yàlla naa ko muñal ba vendredi fekk mu am lu clair venant de vendredi xel comme bâche commencé woon nañ sax yóbbu matériel bi vendredi matin j'ai dit nañ bàyyi war naa gis gouverneur vendredi à 18 heures dans ce cas, je vais prendre mes décisions pour mën mener installer ou pas. Mais quand j'ai vu les cas, moi, le gouverneur, j'ai bien réfléchi. Man Raroprod, je suis responsable. neex na lool man m'a investir. Mais nous ma baye, nous teg événement. ñi n'y foofu am fa feebar Mais am lol, c'est mon bop. Maneko aussi, amuñu benn visibilité venant de l'État li wane ne feebar bi mën nañ ko maîtriser kon man je reporte mon concert c'est là où j'ai appelé l'équipe de Dadju le vendredi pour leur dire que le concert sera reporté donc le gouverneur m'a salué là-dessus nee na vraiment c'est fort c'est courageux de pouvoir réagir comme ça mais moom il était épaté xalaatul woon ne danaa def loolu ak moom peut-être foogoon ne danaa ñëw kaas xuloo xeex walla déconner on a perdu des millions énormément de millions énormément de millions mais bu ñu xoolee ñii dee xool ñi nga xam ne tous les jours on entend des cas ay neuf cent ay mille mais on s'est dit on peut pas se permettre de le faire dañuy bàyyi ba situation gën a reprendre dans les normes dans ce cas ñu kale suñu date moo gën a responsable moo gën a dal xel ndax je pense que ne li ma yàgg di wax raxu prod ne vient pas Dakar organiser pour une date on est venu pour la durée on veut des références on veut des exemples au Sénégal te ku bëgg a nekk exemple au Sénégal ci cas yu mel ni nga ko war a mën a wane ah, di remercier nag sama yenn mbokk organisateurs yi ndax j'ai vu que quand j'ai reporté Le gars qui devait faire l'artiste Nino m'a contacté, m'a demandé pourquoi je reportais. Je lui parce que ce n'est pas, pas le moment de faire des concerts. Lui aussi, il m'a dit qu'il va reporter son concert. Je, profite aussi pour remercier Mamcher. Lui aussi, il m'a dit le concert de, de Walisek à Rufisque, il va aussi reporter. Donc, mon année, mon comment on l'appelle ça le bon exemple pour que gars yi derrière mën a def loolu loolu nag dama ciy remercier aussi sama équipe ndax samedi on a beaucoup discuté là-dessus beaucoup beaucoup longuement réfléchi pour ñu mën a jël la bonne décision et je pense que la bonne décision c'était de reporter le concert et les staff de Dadju aussi ils ont compris donc euh, euh, di gërëm sénégalais yi ndax gis naa ne bañ ko annoncé les retours étaient positifs euh, di ñaan état ndax li état rek moo ko man kenn mënu ko mu taxawu sénégalais yi ndax kenn mënul dem tëju il faut que nit ñi liggéey on doit travailler te loolu état moo mën a organiser loolu ba ku nekk mën a dem xëy liggéey euh, mën na indi dara ci këram euh, ñun nag musique la ñu xam moom la ñu bëgg te ci loolu aussi la ñu war a mën a dimbalee ba ñu teg ay moyens yuy tax ñun ñu mën di continuer suñu liggéey euh, te xam naa ne gars yi sama classe yi ils étaient prêts à mettre les mesures barrières bi ñuy wax ñu ñëpp pare woon nañu parce que déjà deux semaines avant on a démarré la communication en disant les masques obligatoires il faut que les gens mettent leurs masques on était prêts aussi à mettre des gels à même jël température le publique bu ñu doon ñëw dañu jël seen température mais dañ ne est-ce que loolu doy na pour mën a tëgg concert est-ce que c'était assez question la boo xam ne aw ma woon bi a te comme que là nee nañu variant delta bi c'est dangereux et ça tue l'idéal on était c'était de faire une petite pause quand même bàyyi affaire yu wàññeeku pour ñu mën a jëlaat yeneen décision donc euh, c'est dur ndax booy tëgg événement bu mel ni Sénégal man j'ai l'impression que en fait sponsors yi ñun dañ leen di saraxu dañ leen di ñaan mënoo tëgg artiste mel ni daju ngay daw ci ay gannaaw partenaire quoi pour ñu lay sponsoriser tey li am nii mën naa ne on a quasiment pas de sponsor mais quand on voulait le faire te il faut que partenaires yi état di jàppale organisateurs yi je par parle même pas Raxu mais les organisateurs on aime ce qu'on fait et on fait travailler beaucoup de gens concert bi ñuy def nii xel comme bâche minimum ils ont à peu près ay centaines de personnes yu ñëw di liggéey raxu prod les jeunes qui travaillent avec moi ils sont minimum une quinzaine ñoo xam na ni ci conseil bi la ñu yaakaar sans compter la sécurité le nombre de personnes qui devaient venir rassembler travailler les médias vous mais tellement de personnes boo xoolee ay 300 personnes waroon nañ mën a liggéey ci événement bi mais loolu yëpp il faut que état xam ne aussi ñu ngi contribuer à notre manière sponsor yi aussi di ci jàpp pour muy yomb ku mel ni raxu ku mel ni keneen ak keneen mën di indi ay artistes fii il faut ñun ñuy jàppale. dégg naa ñu naan du ñuy jàppale jeunesse bi mais je pense que jeunesse bi gisuñu ko ñun ay jeunes la ñu ñu ñuy jël ay million di investir suñu dëkk mais à chaque fois on le fait difficilement on se bat difficilement il faut que ñu taxawu jeunesse bi ñun dañu yor kàddu jeunesse bi parce que ñun bu ñu amee jeunesse bi dañuy am bu ñu jàppale dañuy jàppale jeunesse bi te am nañu ambition créer lu rëy ci suñu réew. jàng nañ ko xam nañ ko am nañu expérience ñu ngi koy bëgg a indi suñu réew nañ jàppale te nañ ñu jàppale si jeunes yi nga xam ne ni am nañu fulla fayda pour liggéey seen réew loolu laa bëggoon wax di gërëm vraiment parents yi xam naa ne bëggoon nañu xale yi ñu euh, seetaan seen artiste mais yàlla moom ay mbiroom moom rek moo ko xam ndax man ku ma waxoon ne y trois semaines conseil bi du am du ma ko gëm on s'est donné xoolal sonn ci yéen aussi médias yi sonn ngeen ci parce que yéen da ngeen commencé du ba tey fi ñu toll nii équipe bi aussi kenn nelawul donc mais na ñu nañu sant yàlla ndax ñun tey ñu ngi taxaw di wax yéen a ngi fi taxaw di di di jël ay image am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci lalu hôpitaux yi donc nañu sant yàlla daal yàlla dimbali ñu feebar bi mën fi jógee nu mu gën a gaawee en tout cas merci loolu laa bëggoon wax résumé rapidement Euh, pour ngeen comprendre euh, euh, lan moo waraloon bitu conférence de de bi malheureusement j'aurais tellement voulu vous dire aujourd'hui on reporte pour caler une date ne leen date bi suba la wala gannaaw suba la mais amaguñu visibilité pour mën a joxe date mais ce qui est sûr et certain que l'artiste Dadju mu ngi xaar ñu ñu jox ko date pour mu mën a ñëwaat avec ses musiciens pour mën a bégal Sénégal yi loolu nag ci ñun la des ñun tamit xam nañ ne du ci ñun. ci nguur gi la des ak ñun sénégal yi bu ñu mënee sacrifié wu tuuti rek ndax ku nekk yaay sa responsable bopp sol masque euh, yenn génn ñu ñàkk fayda ñu wàññi ko et puis euh, ñu xeex lii te lii pour xeex ko il faut qu'on soit ensemble sinon du dem bu kii di xeex kii ne man faalewu ma feebar bi kon du ñu mën a dem ndax feebar dafa am ça existe réellement quoi en tout cas merci